internet ay gros titres la diw ak diw xuloo nañu waaw tel sévèrement sur tel les ak lii ak donc dañuy bind ay gros titres yo pour vendre sen sen sen vidéo wala pour vendre sen sen journaux donc le mot ba euh de dem ba ben ins am na ay termes yo xamantene mais tey tey tey tey boy boy xol c'est les termes les plus récurrents utilisés dans les journaux aussi dans les titres des vidéos de dans les sites internet donc loolu jot na quand même ñu régulariser ko parce que n'est qu'on xamantene maintenant lu lu le la loolu mo dem sax ba commencer di métier journalisme et tay sénégalais dañuy am problème faire la différence entre le journalisme journaliste le chroniqueur l'animateur. pour nous, képp ku toog ci télé rek di wax rek kooku journaliste lañ koy am na sax ñoo dañuy considérer caméraman comme ay ay ay journaliste donc Sénégal mooy journaliste yow l'essentiel rek ngay liggéey ci benn télé wala ngay liggéey ci benn site internet boo génnee rek ni ñi lan euh, tur boobu lañ lañ lay euh, journaliste donc je pense que euh, loolu mom moo tax ñu wara régulariser pour ñu mëna xam exactement qui est journaliste ak kan mo nekkul journaliste et je pense que la carte nationale de presse buñ ko défaré c'est juste c'était juste dans ce contexte là mais ba tay mm-hmm gis nañ ne problème le problème persiste te carte bi sax amna ñu bëri ño xamante ne dañoo jàppante peut-être loolu moy tax ñu mëna def la la différenciation entre le journaliste le technicien l'animateur mhm. mais carte bobu non tay da ngay gën ci mbéd bi nga dajé ak nit yoo xamante peut-être que ñom demb sa nekk ñoo ay journaliste mais tay il détient ils détiennent la carte donc ba tay le problème reste entier mënuñu ko mënuñu kaa régler te yaakaar na avec le nouveau régime il faut que ñu xoolaat mbir mi ñu segyaat xam kan mo kan mo wara a yor carte bobu noonu kan mo wara exercer le métier de journaliste ak kan moko warul exercer je pense que meñ ñu ba trouver euh, la solution par rapport à ça dina tax ba même bu fekkee ne mënuñ ko régler totalement mais ñu régler le problème euh, euh, en partie. lay ci beneen côté bi nga xamante ne foofu Ousmane Sonko di waxé ci par rapport à la presse mu melni daf leen di intimider wala daf leen daf leen di jéem ñu menace la. voilà daf leen di jéem menacer parce que <laughs> quelque part aussi nañu waxante dëgg am na ci presse bi loo xamante ne euh, lu bon la wala nekkul loo xamante ne lu baax la mais quelque part aussi fii lañ gis ay journalistes yoo xamante ne amoon nañ ci problème ci ci régime Macky Sall parce que tout simplement dañ doon jël ay position wala dañ doon gis loo xamante ne euh, jëmul kër ñu taxaw di koy di koy di koy dénoncer ci régime Macky Sall lañ gis lu ñu emprisonné ci ay ay ay ay journalistes musul am c'est parce que tout simplement ñooñu dañ leen collé ci benn parti on peut prendre l'exemple de Sagna voilà ñoom def nañ def nañ kaso am na ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne defoon nañ ci kaso parce que hmm. ñooñu dañoo considéré ne ñoom ay défenseur Ousmane Sonko la même si quelque part ils hmm, sont ils étaient objectifs par rapport fii lañ toog fii nii di di di di amul lu ñu wax lu ci Babacar Touré hmm. ba fii ñu nekk nii sax lan lañ doon wax Ousmane Sonko moo ñu ak leneen ak leneen parce que tout simplement booy wax ngay défendre <laughs> Ousmane Sonko booy wax di défendre Ousmane Sonko dañuy yaakaar ne yow foofu noonu nga far waaw te pourtant am nañ si ñoo xamante ne dëgg rek lañ doon tax ñu ñuy wax donc tey bu ñu ñëwee ba Ousmane Sonko di wax loolu noonu peut-être que wax na ko euh, de façon générale mais ñoom ci moom xam na en âme et à conscience que am na ci biir presse bi ñoo xamante ne ñu ngi def seen liggéey comme comme ni war a faruñu fenn mais ñu ngi def comme ni nga xamante loolu la liggéey bi santaane wala loolu la éthique ak déontologie journalisme santaane mm-hmm. ñun ñii amul kenn koo xamante ne fi menace wala kenn koo xamante sa vie sa dund nekkutoon ci ci ci danger ñun fii ci corniche man damaa yaakaar ne jour na lañuy jeex na bi ñu jàpp Ousmane Sonko suñu oto tout tuuti rek moo moo ci desoon que tout simplement a ñi xam lan mooy xew foofu noonu saañam yi nii bu ñuy jàpp Ousmane Sonko fourgonnette ñaari ñaari fourgonnette yooyu noonu man xam naa ne rek xaw ma lan moom ma si génnee sax. fii lañ taxaw fii am na suñu benn caméra ma taxaw fii nii fetal lañu lañu si kawam. Mm-hmm. ne ko fi nga toog. am na ñoo xamante nii lañ. doon téye Alassane <laughs> ci ci. dañ koy donc loolu yëpp am na am na ci gis nga projet bii nii. andi <laughs> lacrymogène suñu oto. comme la guerre ah sànni sànni oto bi. donc gis nga projet gis nga projet bi nii moo xam journaliste moo xam hmm. baykat moo xam euh, sàmmkat moo xam euh, mécanicien moo parce que jamono jooju noonu. bu événement bu manifestation bu amee jaaykat yi daanu ñoon jaay boutique yi dañ doon tëj mécanicien yi daanu ñoon xëy jaaykat caaf yi a doon tëj seen kër mais am nañ sax ne ñoom dañoo jàppoon ne rek pour ne serait-ce que ñu mun a boo xamante ne ci nasaraan bi la fare ñëw ñu ko mu def liggéeyam comme nu ko neexee yeneen journaliste yi nga xamante ne ay sénégalais lañ fii lañ dëkk seen liggéey ñu neen ça s'est passé ma jaaxal dugg na kaso kenn watu ko non gis nga gis nga gis nga loolu lu ma jaaxal la loolu aussi lépp dañ ko lu ñu war a wax la gars yi foofu ku fa dugg 100 dañ lay wat ndel bu set mais premier sumi la mais Juan Branco moom benn pepp karaw kenn laalu ko ci moom. waaw Juan daal am na doole. xam nga moom sa moom sa daan daanaka sax. Juan lu ko dugal kaso. lu mu dugal kaso loolu jaaxal na noonu la génne. noonu la génne moo moom moo gën moom mu doon président parce que moom xam na lan moo tax mu wax loolu Ousmane Sonko lu mu si biir ci par rapport ak torture wala ci par rapport ak li ñu ko vilipendé Ousmane Sonko lañ tojoon fii otom ci ci ci ci ci ci ci jamono jooju noonu Bassirou Diomaye Faye euh, yàlla moo def bu koy jàppee dugal ko ci biir kaso bi amutoon benn problème wala bu koy jàpp sax amul noonu échauffourée entre ñoom ak force de défense et de sécurité mm-hmm. mais Ousmane Sonko ñaata yoon jote ñaata yoon xeex ak ak force de défense et de sécurité moom lañ tojoon fii otoom moom lañ gaz yoon fii lacrymogène moom ak avocat am ci barricade këram Sonko lañ barricade yoon fii këram jàppoon fële Koungheul dugal ko ci fourgon directement euh, Dakar ba am sax ñu doon wax ne mhm. dañ kaa defoon livraison cag-cag Ousmane Sonko la ñuy fële euh, ñaar ñaar fan la defoon Ziguinchor mënul genn genn sa kërëm dem pour genn ci biir kër gi mun ko doon def mhm. donc quelque part bu waxé né mom Bassirou Diomaye Faye doon président moy genn que mom doon mu doon président quelque part ça peut se comprendre parce que limu mu dund bu fekkee né amoo maîtrise bu fekkee né amoo xol bu nga xamante xol bu yaatu la soo jëlee pouvoir rek da ngay bëgg a nonu té yaatu su boba ay président deux heures lay créé par rapport ak réew donc je pense que peut-être yalla mo def Bassirou Diomaye Faye doon président parce que Ousmane Sonko quand même bu doon présent président pouvoir yépp li nga amon nako bu fekk ne yaatul le su comme luñ won kon tay duñ tok peut-être que la majeure partie des opposants parce que xam nañ ñan ñoko doon def xam ordre fa la doon joggé xam nañ ñan ak ñan ak ñan exécuter non, donc quelque part ça peut se comprendre parce que quand même euh, parcours bi méttiwoon même ñi nga xamantene ne sax laalewuñ ci wala amuñu carte membre Pastef ak yooyu noonu yooyu yëpp on a subi les les les conséquences donc tay euh, je pense que foofu xam ñi nga xamantene ñom lay lancer message boobu non ñom ils ont très bien compris mm-hmm. donc quelque part aussi ñeneen ñi nga xamantene def nañu ay réaction di jéem a tontu par rapport ak loolu ça on tout ça on on comprend. day day d'ailleurs Ange Ange dafa ne woon moom bu fekkente li tax mu baale parce que moom lu mu jot a dund.

bu mm-hmm. jëlee xaalis lu mu moomul sàcc la. Mm-hmm. saaña booy waxati ay détourné mm-hmm. loolu man ñooñu noonu. parce que mm. li nga xamante ne ñun ñëpp a ko ñooñu jël alalu réew mi ak di ko euh, salfaañe loolu moo war a tax ba tey dund gi kenn mënu koo fexe ba wàññi. moo tax moo tax ñooñu mënoo mënoo leen baal man moo tax man à chaque fois j'avais dit ici que amnistie bi man musuma see d'accord parce que man dama mën a comprendre ay nit yoo xamante ñoom la wax ne ñooñu ñoom ñoo doon def lii ak lii ñoom ñooy force euh, occulte ñoom ñooy bandi yi ñoom ñooy rebelle yi ñoom ñooy force spéciale yi nga ne nga jékki-jékki nga ne ñoom ñëpp da nga leen di libéré nga ne leen dellu leen ci biir société bi mm. loolu sax dafay créer benn euh, benn insécurité boo xamante bu dee lu ñu doon wax ci ñoom dëgg la man gis ma lan moo war a tax ñooñu ñu libéré man fii laa doon toog may naan bu fekkee ne am nañu si si biir ñoo xamante ne dañu yónnee woon jàppale leen dugal leen ci biir kaso bi hmm. ñooñu dañ leen libéré ñoom ñu lañ doon wax fii ñoom ñooy bandi ak yeneen ñooñu sax pour setal seen der sax ñoom ñoo warul toon nangu ñu defal leen amnistie parce que boo delloo ci biir koñ bi ñun Sénégal boo xasee boo am problème ak rek ñii ñi beneen regard la ñuy am si yow bandi lañ lay teg woyu lañ lay teg dealer lañ lay teg wala nit ku bon même bu fekkee ne dem kaso jombul kenn wala dem kaso nekkul sax da def lu bon moo tax ngay dem foofu hmm. mais ne serait-ce que pour setal seen der dañu hmm. waroon leeral affaire yi xam ku def ak ak ak ki deful am na solo alors monsieur Diouf ba tey euh, hmm. démb muy tontuwaat jëm ci relation moom ak président Bassirou Diomaye Faye daal naan rek ñi nga xamante ne euh, jàpp na ni mën nañ dugg ci seen ay diggante seen ay euh, maam sax juddooguñu mu mel ni kon jamono ji seen relation dañ ko sële ba nga xamante ne mënul am prox ndool Nous ñoom préparé wu ci loolu préparé ci euh, ba kenn seen sénégalaise angle d'attaque mu ñu créé une fissure mhm. entre le président Bassirou Diomaye Diakhar mhm. suñ ko suñ atteindre euh, le président Diomaye parce que Ousmane Sonko actuellement day servir de fusible au président Diomaye moo koy euh, protéger ci yenn attaque yi ko def directement ndax euh, opposition bi Ousmane Sonko mo len jaxal parce que mom il se laisse pas faire mo tax dem bu guéné il a bu dafa profito pour tontu ses mhm. détracteurs. en commençant par la presse parce que su la presse aussi du euh, généralisé wul waxul presse bi yépp mais Sénégal ku ne xam na ne am na une presse véreuse presse boo xam ne dañuy bind loo xam ne dañu ko teg fenn ça n'a rien à voir avec les règles d'éthique et de déontologie qui régissent le fonctionnement du domaine. Mm-hmm. ak code de la presse bo xamne ne dafa interdire presse ci mu bindi lo xamne amul ben source bu wër parce que boo seetloo ñi bindon ci affaire euh, général Kandé bi bu ñen wolo bu ñen leen laajee mais lu wax nekul source. Mm-hmm. lu wax nekul nekul nekul dëgër. Mm-hmm. lu mëna mën a sukkandiku ba divulguer information. taal dëkk bi lañ ci bëgg. té lool gatché la aussi ci presse presse am na doole te presse quatrième pouvoir la buñ ko waxé nak euh, dafa neex a dégg parce que la soxla. Euh, un pouvoir qui peut venir pour arrêter l'excès de pouvoir des dirigeants mooy état boo xam fait des dérives ay dérive day les euh, force de l'ordre et de sécurité di ko dal des dal ci askanam presse moo comme un a a des comme pouvoir bind ay malversation bind des détournement des corruption presse ci loolu lañ koy xaar mais mu am ay sources qui sont yoo des choses ci donc si vous avez une opposition bi qu'on a, yaakaar euh, diviser les mais nañ ko a ci ay bu nekkee le président Ousmane Sonko def na loo xam ne war ko def wala détourné na wala am na loo xam ne lu na ko mais nañ bind loolu wax ko opposition bi aussi na ko wax bu nekk dañ def benn politique agricole bu jaarul yoon nañ attaqué loolu loolu mooy opposition parce que moom loolu wax démb ne leen ñu ngi xaar benn opposition bu sévère bu radical mais boo xam ne dañ koy teg ci ay idée dañ ko teg ci idéologie teg ko ci programme mais pas aussi ñu basé ko ci ay saaga wala ci ay sosolaate donc bu nekkee moom moom la commencé woon mooy yor aussi def na ci liggéeyam am na ñu ñu woolu euh, am na si ñoo xam ne sax arrêté nañ leen ba denc nañ leen ci loolu parce que li ñu defoon nekkul opposition. ça n'a rien à voir ak l'opposition nekkul ay saaga. Sénégal dafa toll foo xam ne pour ñu demaat ci defar ko fokk ñu euh, instaurer la discipline d'abord. surtout ci citoyen citoyen yëpp. te loolu bu ñu ko waxee ne amul benn distinction. Mm-hmm. amul coloration amul appartenance politique. Mm-hmm. moo tax bi euh, le ministre envoyé vidéo bi di koy alerter ci benn militant passé bu doon manqué respect la magistrature da ko ne defal sa liggéey defal na def liggéeyam loolu mooy yoon na def ligueyam parce que justice xamul loolu xamul euh, ne qui fi la far wala qui fi la amul état d'âme la loi est mais communication bi ko communiqué est ce que japp nga ni c'est normal alors que dañu hmm? guen ñu ngi doora guen ci assise bo xamantene assise de la justice la ñu ne jub-jubal jubbanti lepp lo xamne ne war na dem ci indépendance justice ak transparence am est ce que aussi gis nga ni bobu communication euh, mon PM bi waron nako jallale ci public bi

Pour ñu xoolaat xool juge d'instruction yi xoolaat procureur yi andi fa ay juges inspiré confiance à la population sénégalaise parce que la population sait, les vrais juges les vrais magistrats ils savent qu'ils ont am nañ euh, teg nañ seen applications de taxi. Parce ci éthique ak déontologie application taxi. parce que ku du juge Sabo mais dafa dafa dafa appliquer euh, loi lu ko yoon euh, wax lim jang ci droit la appliquer ba mëna rendre une décision de justice. Mhm. mais c'est pas parce que dafa favorable à Ousmane Sonko mu waxee non mais lolu les Sénégalais ñoo xam ne kii dafa appliquer yone non le le juge tion defoon. te dañuy am lolu Sénégal aussi loolu nekkul fii euh, lu tumuranke depuis la génération de Kéba Mbaye dañuy yàgg am juge yoo xam ne dañu intègre. Mhm. ñooñu bu leen sukkandiku ci li nga xamné ne mënuy andi ci réforme conclusion réforme justice bi mu nek justice bo xamné dafa euh, indépendante donc amul ben yon lo xamné ne wax na dem mun a influence c'est une communication qu'il a faite mais lolu man gis na né mënul ba am ben yon influence ci doxalinu justice bi ñu war a war a dem parce que foog aussi dossiers yi nga xam ne ci table yi la nekk procureur bi foog ñu dem ci càmbar ko aussi leeral ko parce que askan bi loolu lañu soxla. am na solo alors ñu jàll ci euh, beneen euh, point jagleel ko ki nga xam ne moo di Maty Sarr Niang moom euh, journaliste la ñu ràññee ko tamit wala boog mu bokk ci kéwuloo loolu waral sax tey ñu ànd ci ak suñu naataango Soubey bu Sagna moom mi nga xamante ne jege ñaaleem la ngir rek mu indilaatal ñu. relation ak Mati Sarnia ginnaw arrestation bi nga xamantene dundon nako ci xew-xew yi nga xamantene ñu ko doon wax mom doon def ligéyam mu journaliste yon euh, tek ko loxo bu mu am lu suma jumul 11 mois au prison la tañu ka bay Sarnia ba doon ñëwalaatal ci Mati Sarnia lan nga ñi wax. alors Mati Sarnia dafa nek nit ko xamanteni man maa xam 2016 2017 mm. bu ma xam c'était dans une radio économique moy Trade FM. Full la ma parce que très FM période bu bu ñuy jël Matissar